ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lamb saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa la paradoxe tafatine sunu lamb ne performant et sevré de combat moom tafatine gannaaw mu jóge ci ñaari victoire ba léegi mënatul am combat journal ba xamle ne il est le VIP disposé à croiser tous ses moom tafatine mooy mbër moo xam ne amul problème adversaire mbooleem ku nekk ci lamb ji tey VIP moom tafatine mën naa laaleeg yow muy Balla Gaye janvier 2018 boobee ba léegi tafaatin combat da koy të booy kayre moom i ne li may yéem man bokk na ci li tax tafaatin ba léegi mënta am combat boo xoolee amul problème mu kasete seerut ba jaaxal nit ñi amul problème mu ñépp la mën a taseel te boo ko gisee lenn rek la bëgg mooy tooyal xaftaanam mbër mi ni mel nag li tax boobu ba léegi amul combat man moo ma jaaxal la jaaxaloon waa sunu làmb ci Ama Baldé ba ñu samp seenub laaj Abdou Bakhoum manageru sëll bu tukkiwul toxuwul Ama Baldé ku koy wër boo demee këram fekk ko fa da di koy mbër moo xam ne ñépp dañuy ñëw di la diis seeni soxla boo defee année blanche say laaf tooy say poos vide da ngay nëbbatu te Ama bu sañoon ku ñëw ci moom rek mu faj sa soxla li moo tax muy nëbbatu waaye mu ngi fi dara dalu ko tukkiwul toxuwul rax ca dolli moom Abdou Bakhoum ne ñun ba ñu paree Modou Lo na ci ñeenti suñu digganteeg Modou Lo ba léegi promoteur bu ko tëgg dang ci génn keneen ka bëgg a génn ca combat ba mu taxawal mooy Jax production diggante Alaaji Mbay ak Big Pato Jax taxawal na ko muy Alaaji Mbay di Big Pato amul kenn ku ca war a def erreur Big Pato le 14 avril 2019 la ko wulli wulli waat daan Alaaji Mbay Adama Diouf moo ko corrigé le 13 juillet bii ñu génn ci arène nationale ñaari mbër yooyu yëpp ku ci nekk ci benn ab defet nga taxawee journal ba xamle ne Alaaji Mbay warta def erreur na ko te faaw mu tàng 2017 ak kenn gisu ko ci mbapat yi teewut ci Adrien Senghor teewut ci Iba Mar Diop teewut ca terrain gaal gi ñaari at la lëlu moom Gora Sock kenn xamut ci li mu nekk dimanche bi lay doog tëll feeñ ca terrain gaal gi jël si wàllam journal ba xam le ne Gora Sock ñëw na feeñ na waaye neexlewul ngaan sekk moo ko éliminé demi-finale xañ ko la mu bëggoon bu dee Serigne Ndiaye 2 bu Fass ba saison bi tijjee ba léegi jëlagum na fi 3 final ñaar ca terrain gaal gi bëgg-bëggam Sangomar koo soxla mu ne Mame Balla wala Tapha Leer wala Youssou ñetti mbër yi kuñ ma ci jox baax na bu dee les promoteurs décidents ya seeti woon CNG démb nee am nañ satisfaction à mbooleem lañ ca sàkku woon am nañ ba am lu kawe seen jort fa ñuy jeexale mooy ca promoteur ya abbu njool gi far seeni daal ne mukk dootuñu tëggati combat Matar Diop Pape Thialis Tapha Diop ñépp daw Matar Diop ma fi tëggan combat Modou Lo ak 17 2018 mu toj ko ba mu mokkuru mbax dëgg fi Tapha Tine ak Yékini Junior le 1er janvier Eumeu Sène Bombardier le 28 juillet Sa Thiès Boy Niang le 11 mars Diène Kaïré Marley le 26 novembre Baye Mandione Modou Anta le 10 février Forza Abdou Diouf le 24 février fi diggante Tyson ak assurance le 12 moom yiital Leewtoo production saison ba dafa jeex mu jeexal tàkk saison ba tijji mu lem ay bagaasam ne mes na dootu ca dal Tapha Diop yeeg seeg perpévu def ko innovation dëgg fi combat ko tëgg